Pikine Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn ñu ngi fii ci kër eh, Serigne Abdou Karim Mbacke ibnu Falilou Mbacke ibnu Khadim Rasoul ñëw fii ci ki nga xam ne moom moo di soxna Fat Bintou Pouy di eh, kenn ci eh, soxnaam yi fas yéene waxtaan ak moom ndax gis ngeen sànq rek li nga xam ne moom moo di bernde yi moom lañ fi fekk muy waajal li nga xam ne rek moom moo di màggal gi gis nga bernde yi moom la tëdd soxna si ñu ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëf bi tey maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen waa 7 nañ ne fekk nañ la fii nga nekk ci liggéey bi ak benn rek yooyu tey jii lan nga mun a wax ak nan ngeen fas yéene doxalee liggéey bi. sant yàlla di julli ci yonent alayhi salaatu wassalaam di sant sëriñ tubaa di ñaanal Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na ko suñu borom yàggal mu ànd ak wér di ko ñaanal Cheikh Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Ahla yàlla yàlla yokk fanam defal ko tawféex. taalibe yi ak njaboot gi yëpp yàlla dafa leen jàmm yàlla may ñu jàmm màggalu jàmm ak salaam euh, li ma laaj nag mooy euh, wàllum euh, màggal gi agsi na doon nañ ko séntu bopp ba tey waaye ñun Touba ku ñu xam-xam ne bés bu ne màggal dañ koy dundee waaye bés bi dafa bokk ci weer weer bi dafa bokk ci weer yi nga xamante ne weeru Cheikh Ahmadou Bamba la moom moo tax weer bi moom murit yëpp koy yëg murit yëpp koy màggal moo tax mu gën a metti ci weer yëpp waaye lépp sant suñu borom la xam ne dara loo xamante ne euh, suñu jàmbaar yi di Seydina Mouhamed ak Cheikh Ahmadou bàmba lu ñu daj rek ñun bu ñu dajee ñu dajalee ñun ñëpp suñuy coono ñoom daj nañ lu ko ëpp. gis nañ ne bu màggal gi ñëwee yéen ñi nga xam ne yéenay soxna yi euh, dafay am coono boo xam ne coono bu bu rëy la ngeen war a dalal gan yi tatagal leen bexndeel leen loolu naka ngay koy dundee yéen. loolu lépp dañ koy sante suñu borom loolu loolu du mettit ci ñun loolu sant la tawféex la ndax ay nit yu jóge seen i kër ñëw euh, ba ci yow loolu sant suñu borom la loolu mbégte la ndax bu ñu fi yëgul woon lu neex wala lu baax wala lu leen jëmale suñu borom du ñu agsi du kon loolu lépp tawféex la ak ay euh, encouragement yoo xamante ne nit ñi ñu ngi yëg Serigne Touba. ñu gis na yaa ngi ci eh, kër goo xam ne mooy kër Serigne Abdou Karim Mbacke ngay eh, soxnaam waaye itam mu am ay taalibe yoo xam ne ñi ngi ci biir kër gi dëkk fi mais dama nemmeeku saa bu mu fi ñëwee yow ak taalibe yi laay gis saa su ne ngeen toog yaa ngi seen biir yaa ngi jaxasoo ak ñoom di waxtaan ak ñoom noonu naka nga def ba loolu nga mën ko ak ñoom. waaw ah, loolu lépp liggéeyal sëñ Touba la rek sëñ Touba moom bu la loo bu la fas yéenee liggéey loo dalay lay waajal rek ñun kër gi jàppewuñ fi suñu bopp soxna dañ fi jàppee suñu bopp eh, ay Baay Faal ñoo xamante ne dañ fi ñëw pour liggéeyal sëñ Touba moom moo tax fuñ ñu fekk ñu nekk ci waar bi eh, loolu eh, mooy moom moom laa ci mën a tontu. <laughs> jërëjëf lan nga lan nga ciy dolli rek comme loolu nga ci mën a tontu mënu ñoo woy romb loolu nga ñu rek li nga ciy dolli. xanaa di dolli di di sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaanal ñi jógee dëkk ak dëkk ñëpp ñëw màggal si yàlla yàlla nagu màggal gi. yàlla defal leen tawféex ci ñoom ak seen ay njaboot Touba yàlla na ko yàlla gën a sàmm euh, ci barke euh, Seydina Mouhamed ci barke sëriñ Touba yàlla na Touba euh, li ñuy wax Touba ca kanam daal yàlla na gën di jëm ci kanam fu ñu toll ci barke Rasulullah ren yàlla dogal tey ma ñëw set si leen fii waaye ànd ak télévision buy doog a juddu télévision bees muy 7TV tey ji naka nga gisee 7TV ak lan nga ci mën a wax. xanaa kontaan rek. di la ñaanal yow tamit ndax euh, ku la xam-xam ne jàmbaar nga euh, ba nga fa nga fa nga tàmbalee euh, fi la ñu fekk fi nga ñëw tey xam nañ ne lii calancu la ci yow di la ñaanal nga am fa ndam gu baree bari bari soxna may Maymuna moom it nga xam ne jàmbaar la ñu koy ñaanal lépp oyof ci moom yàlla kàttanal ko ba mu bañ a gis benn jafe-jafe ay technicien o mag